jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen ñu koy topp ci site internet bi di Net Bi TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy rek concert bi nga xamante ne rek kii di doon na ko amal nag foofa ca diwaan bu Paris daal dinay am rek ay perturbation li ko waral mooy ay visa ñu gàntal seen musical sénégalais bi nga xamante ne rek nit ki weekend bi nag dafa daal di dund mbir moo xamante ne rek mbir moo doy waar la kii di Mia Guissé nekk wéykat bu am talent nekk nag koo xamante ne rek ñu ko daal di ràññee ci wàllu musique ginnaaw concert bi nga xamante ne rek doon na ko amal nit ki démb foofa ca casino ca diwaan bu Paris ci kanam salle bu fees dell nag boobu lay événement rek na mu daal di amee ay complication li ko waral du lenn rek lu dul ay affaire administrative moom moo tere rek parti équipe am bi ñëw gunge ko nag ca boobule eh, concert mu nekk nag ay nit yu am solo waaye nag nekk ay nit yoo xamante ne rek yu significatif lañ la ñuy bàyyi nag ci eh, bi ginnaaw bu ñu leen bloqué foofu ca diwaan bu Ndakaaru li ko waral rek mooy ambassade bu France dafa daal di bañ ne du leen jox nag visa ci yooyu de nit nemmeeku nañ ci ay musiciens ay fecckat ba ci ay journaliste mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ne rek da dinay wàcc ci kaw kii di Mia yàggisee li nga xamante ne rek doon na assurer spectacle bu mucc ayib waaye absence bi nga xamante ne rek ñenn ci ay collaborateur am daal dinañ koy absenté ci boobu les concert daal dina koy affecté bu baax a baax ndax ñii di influenceurs yi nga xamante ne rek ñu ngi doon def promotion boobu les événement nag yëf yi daf leen dal di laal bu baax a baax ginnaaw nag bi nga xamante ne rek pour ñu ñëw nag ci territoire français bi dañ leen ko dal di gàntal mu nekk nag ay nit yoo xamante ne rek jamono ji jàpp nañ ne nag yooyu les euh, visa seen visa nag naam sax validé na waaye nag ki nga xamante ne moom mooy Mira Guissé générosité bi nga xamante ne amoon na ko ak charisme bi nga xamante ne rek amoon na ko euh, jamono ji nag ñenn ci ay entourage nekk ay artiste nag manqué ci boobu les événement rek rek daal dina koy laal bu baax a baax mu nekk nag absence bu doy waar boo xamante ne daal dinañ koy eh, nemmeeku nag ci diggante artistes yi ak ay partenaire am eh, mu nekk ab adaptation boo xamante ne rek dafa daal di eh, basé wu rek ci modification énergie initiale bi nga xamante ne rek moom ci jëmmi boppam rek doon na ko waajal foofa ca diwaan bu Paris mu nekk ab performance boo xamante ne rek euh, bu manqué manqué la mu mel ni rek euh, kii di Mia Guissé nag ni ki démb rek ca concert bi nga xamante ne doon na ko amal ca diwaan bu Paris mbooloo moom fa doon xaar daal euh, mujjul ko am ndax nag ñi nga xamante ne daal ñoom ñoo bokk ci moom nekk ay fecckat ba ci ay journaliste nag wute nañ yëf yi di ko waral moo di dañ leen a bloqué ca diwaan bu Ndakaaru ba noppi rek gàntal leen nag ab visa du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee mun a am yeneen i